xale ba xale ba nga xam ne moo nekkoon ak jabaru mbër ba xale ba nekkoon ak jabaru mbër ba yaa tax jabaru mbër ba kidnappé ko téye ko pour sauver ko nga jàpp xale bi rëdd di ko def loo yëfi bi am baara xale bi tubbi am baara yaa ko yow man lépp ma mooy ñaar yëpp nga yow ñaar a yës ci àdduna caga sax mën nañ ko te barke Serigne Ba Abacar Sy laa lay loolu ngay dund yëpp lu ci benn boo xam ne man mës naa ko cee dund lu baax rek laay def bu ma juddoo ba parce que ci fañ bu baax laa juddoo yow amoo way bu rafet amu réputation bu rafet te daa am ñooy laal ñoo dul laal parce que xam nga ñu baax ña nga bokkuloon géew ba altercation bu metti ci diggante mam Ndiaye Savon ak ki di engagé ana lan mo xew réellement wala lan mo len jotelee dal leen ak jamm internet ak Miss News 221 ñu dal di ñëw ak yéen ci l'actualité du net dal di koy tàmbali nak ak vidéo yi nga xamné dal dinay viral lool ñu dal di gis sax ben xeex ci diggante mam Savon ak ki di engagé niki demba alors que ñoom ñaar dañoo daje woon ab xew ana yëf yi nag lan moo ko daal di jur mo nekk buñu sukkandiko ci vidéo yi nga xamné gis nañu leen ki di engagé dañoo demoon benn xew mu daldi gunge Diva saliw Mame Ndiaye Savon aussi de son côté mu de anda ànd ak ki nga xam ne moom moo nekk maman vulgaire ak nogay ak yeneen itam gis nañ ci sax parmi ces gens là Sali Babel ki nga xam ne moo nekk Zalbay aussi teewoon na fa ca biir loolee nag li nga xam ne daal ko fay gisaat moo nekk nee nañu engagé dafa doon tagg ki nga xam ne moo nekk Diva saliw ne ko dangaa nekk xale ba nga xam ne danga yaru sa yaay sax buy wax doo sigi di ko xool bokkoo ak xale yi nga xam dañuy këlli seeni par la suite ñu daldi gis ne kii di Mame Ndiaye Savon ba mu nekkee mu daal di xam le ne nag moom nekkul xale ba nga xam ne dafay topp kaa nekkul seytaane mais aussi xale bu ko tontu dina nangam taan sa ndey ñu bëri nag daal di jàpp ne loolee moo nekk kàddu yi nga xam ne daal dafa daal di dérapant saaga yi nga xam ne Mame Ndiaye Savon daal dina koy jël nag ciblé ci kii di engagé ndax moom mooy daal di def ay revue yi nga xam ne nee na ñu def ci daal di topp kaa par la suite nag la ñu di gis ñoom ñaax bi nga xamee ne daje nañu ca biir géew ba ñu nar a ba ay nit daal di dox ca seen diggante ku ci nekk daal di saaga sa morom engagé nag ba mu ñibbee dafa daal di taal live am ngir daal di mën a tontu ki nga xam ne moo nekk Mame Ndiaye Savon tuddul turam nag directement mais comme ni ko xale yi di waxee wax ju àggul dafa ko moom kàddu yi nga xam ne nag daal dina koy xotal ca boobu lee live moom kii di engagé daal dina koy mettre en garde ne nag bu fekkee dafa taal live am yëkkati benn baat jëmale ko ca moom na xam ne ca moom daal la nar a ndax bu ko tontoo dootu fi xajati ne nag gis nga sa xuloo bi nga xam ne doxoon na ca diggante sa diggante ak Kenzel ba la mu la fi waxoon mi te lépp la nga xam ne waxoon na la ko aussi dëgg la mu nekkoon nag ay révélation yi nga xam ne doy na wax lool ba kii di mami sax euh, ñëpp nee nañu moo nekk Kenzel bi ko Cobra te ñëwoon na sax euh, ci li nga xam ne moo daal di causé divorce kii di Mame Ndiaye ak euh, doxalin bi nga xam ne sekk na ko ak kenn ka nga xam ne dafay daal di liggéey ak moom moom moom moomee di engagé nag gannaaw ba mu ne lépp la nga xam ne waxoon nañu la ko fa dëgg la mais nag na nga xam ne bu fekkee daal dangaa duggaat ci man lu gën a pire loolu noonu di nga ko dégg ñu bëri nag di xaarandi kii di Mame Ndiaye ndax dafay daal ngir daal di koy mën a tontu mais engagé nag nee moom ginaaru kenn nenu ko làmminam bi moo ko moom lépp la nga xam ne bëgg na ko moom du ko yónni nekkul apprenti mais li nga xam ne la xamal Diva Saliou da ko koy tagg bu fekkee ne nag loolee mooy daal di dagg seen xol ñoom ñooñee ba ko moom moomee di engagé mu daal di yëkkati yooyu lee kàddu gis nañu ne nag internet yu bëri ñu ngi ko doon xas naankaan moom daal dafa nekk ka nga xam ne dañu koy daal di yeb yebal mu ne nag ñi nga xam ne dañuy wax loolu yëpp moom yoonam nekku si bu leen yeboo sax nañu ko traité de góor jigéen lépp lu ñu bëgg mais moom du wannal kenn baat ndax nit bu xëyoon sax daal di koy tooñ mu noppi di la seetaan seen waa kër ñooy njëkk a jug noq ko seen waa kër ñooy njëkk a jël jat dal di koy fëkk dóor ko ndax ñoom nag juruñu ragal mais aussi ñu toog di seetaan kenn di leen këlli këllee maanaam nag lépp la nga xam ne maam Njaay wala ñamu àndal préparé nañu ngir daal di jug dal ci kawam na attention nit ñi daal di laale ak ki nga xam ne moom moo nekk Zal Mbaye nga xam ne teewoon na ca ba ñu li nga xam ne njoxtu nañu ko daal ca kii di Zal Mbaye mooy ne dafa doon gaaruwaale mais nag jusque là daal ñëpp mën nañu ne seeni bët daal ca ñañu ko ñañu ko a rivé moo nekk engagé ak ki nga xam ne moom moo nekk Mame Ndiaye Savon lu yaay bi nga xam ne nag dégg ko ci ba tax ñu naan kii di Mame Ndiaye nag moo ko métti wala moo tax mu jàpp ne dafa doon daf ko doon gaaruwaale daal dina ci bokk fan yii nii live yi nga xam ne mu ngi koy tegloo di ko def ba am ci benn ba nga xam ne sax nee na moom yaayam dépense am lay dundee mu nekk nag ay kàddu ya nga xam ne ñu bëri dañu ko ñaawlu ba ci xaritam bii di Adamo ne nag kii di Mame Ndiaye nitam la mais na xam ne dafa daal di dépassé carrément les bornes Mame Ndiaye dafa beew léegi Mame Ndiaye na xoolaat boppam bu baax jot na mais aussi daal dinay xasaale ki nga xam ne moom moo nekk fu xam le ne kookee am benn mauvaise influence ci ki nga xam ne moom moo nekk Mame Ndiaye sa savons toujours ci kàddu yi nga xam ne moom kii di Adamo daal dina koy yëkkati nee na jot na Mame Ndiaye mu daal di xoolaat boppam te xam ne daal yaayam rek la am ndax bu ko neexoon mu jur ko daal di koy rey ca hôpital ba bu ko neexoon mu jur ko daal di koy sànni war a mu toroxal ko defu ko tey moom Mame Ndiaye bu doonee mam Ndiaye ba ñëpp di ko dégg c'est grâce à sa maman yaayam aussi ñu dégg ko mu daal di dugg ci ab live daal di ci yëkkati ay kàddu li nga xam ne wax na ko nag mooy kii di Mame Ndiaye Savon baax na lool mën nañ ne sax lépp lu ko waroo ak magam mu ngi rek mooy cata mooy bépp problème ba nga xam ne am na ko ak seen waa kër la muy bëgg mooy daal di koy exposé ci internet bi te yëf yi warul demee noonee Mame Ndiaye naka jooy yi nga xam ne mujjee nakaa def daal nee na loolee du nekk la nga xam ne dina ko daal di defati désormais dafay gasta gasta ak ñi nga xam ne daal ñoom la cercle média bi dootul bàyyati kenn naan dafay toog ci diggu boppam mu nekkoon naka une deuxième fois ba nga xam ne gis nañu ko muy jooy en plein live ba nga xam ne am na ko à l'encontre de ses frères de woon internet yi daal nee nañu daal loxol fu daal nag xëy na génnu ci ndax à chaque fois que anniversaire am passé dañuy gis ne problème dina am ca diggante Mame Ndiaye ak seen waa kër peut-être que aussi mu nekk jalousie ci kado yi nga xam ne Mame Ndiaye daf koy jox fu te joxu ko ñi nga xam ne ñoom la bokkal. fii Mame Ndiaye moom moo jël kër dugal ma ci dugal ci ay raqam te ñu ñëpp dañoo nekkoon suñu jàmm nekk suñu salaam luyee suñu lee di lekk di naan kenn xamala ñu dara moom moo ñu dugal internet ba àdduna bi yëpp xam ni teewul bàyyi leen ko. eh damaa bëgg ngeen ma jàmm. Zal man bu ngeen def bu bu ngeen ngerti ma. man kenn ma ginaaru kenn ma. dëgg ma Saliou moom a ni ma ma xool. sama pratique man kenn du ma yónni. waaye bi ma Saliou nii. damaa dégg nag barki dem. sama waa ji tubaarkalla taaliba Serigne Saliou. tubarkalla yaayu engagé mbokk mi yaayu ditt gi ngay jàpp rek maar xaasimal bu faral ci gitaar maar sama waa yaa ngi doon toog bu natt yaa ko waaye bu nit koy jékkee sama waa yaa ko sama waa ji borom natti million yi dama ne dama ah fii ma jàkkaarloo ak yow ndax nag sama waa ji tubarkalla macha allah mais ni ñu des toog leen ku mu yónni nga bañ boobu xamul di baax saa yu ku mu yónni nga bañ kooku xamul. yow tubaarkàlla VIP à vie Diva Sall nee na da ngay rakkam baax moom bëgg ko yaru te moom nee na képp ku mënta defante rek ku xamante waaye moo yoroo bu defante yow te yow da ngaa yem lool nag vraiment xaay la bu ñu xeexee sa bés fay ñu la sa bés fay la ki nga lekk yaru doom mënul leen a woote ba ma jël leen parce que mënu leen a wax lu ma convaincre man suñu kër laay laay fee laay fee ma kër jàmbur sama biir fa sama famille ngi tëdd toog ci bunt bi nee nañ ma booy nopp ñu ñaf sa ndey sama famille nee nañ ma booy nopp ñu lay rey pour lan ay engagé góor ngaa ak lii ak lii maa mu cottu ndaay ay lii la xamee ni kii góor laa góor la ni maa tay man may saaga mënoon nga maa jege moo gën nga taxaw fi mu toll lu fay coow coow li la bëgg amu nga jóge na si coowal almeeru jàmbur yi mu tooñ jóge na si coowal almeeru jàmbur mu tooñ mu jóge waat fa mel ni ku laal laalaake xam naa coowal almeer moo ko ba tey bi baax biir famem la sen famille mu ne xaaral wut lu ko fay rek ma coqas engagé waaye coqas nga ko ma coqas nga ko xamne du may tarafatal ay ni xam nga yow at bii sa at la saa buñ ak deli boy def sa bu xey wax du ñaaw joy wax ay nit ñi di nit ñi di négocier nañ la balam duñ la bal nga duggaat sa bir famille xamna lo nga bëgg fay nga na xaaral ma coqas engagé waye dalo ci na fa nga yaram dalo ci yak elu bu jigen élu bu jigéen dama njoxtu rek ñu ma daf cee xaw a duggaale tuuti élu bu jigéen ay boo duggee si tool yi élu bu jigéen yow moomu di ànd ak mama naa ci sama xarit ay élu jigéen boo ci duggee <laughs> yow xam nga am ndax yow kuy kuy fuut ci àddina yow lay jàppale ñoo ngi leen di jaajëfal mbokk yi di leen euh, jox dig daje beneen yoon incha allah ci seen beneen numéro ak Miss News 221 jërë ngeen jëf.